jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Sénégo TV euh, tey nag ba tey ci euh, yóbbulu màggal ak Sénégo tey ñu ngi fii ci euh, Aynu Rahmati nekk barab boo xam ni néew na nga ñëw Touba ci doo fi jaar wala néew na ñi nga xam ne ñu ngi Touba xamuñu ko barab boo xam ne ab teen mi ngi fi teen beeg li ko ëmb nag ak sabab bi ak njëriñ yi ci biir incha allah rabbi léegi daañu ko xam ak nga xam ne ñoom la dénk bi ba tey mën ngeen topp ci yóbbulu màggal ak Sénégo jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel Sénégo TV ba tey seen émission yóbbulu màggal ak Sénégo tey nag ñi ngi fii nga xam ni moo di Aynu Rahmati euh, di symbole ci yoonu murit ñi ngi taxawal nag Serigne Daouda Sarr bi nga xam ne mooy responsable fii ñu bàyyi ko mu nuyoo Serigne Daouda ñu ngi lay nuyu. sunu Serigne sunu wasiir la Serigne Khalil Sarr Jasaaka di ko ñaanal mu yàgg fii lool te wér. Euh, di siyaare mbokki taalibe yëpp yi nga xamante ne nii ñu ngi ñëw ci màggal gi di leen ñaanal ñu ñëw ci jàmm euh, delluwaat ci jàmm mbokk yi nag fii mooy Aynu Rahmati Aynu Rahmati nag teen la boo xam ne Serigne Touba moo ko tàmbali ci loxo boppam moo wax ba mu xóot joxe ndigal li ne nañ ko gas li ci tawféexu maam Cheikh Ibrahima saar Njaañ nag ci ak ayam ci la teen bi bënnee bi mu bënnee it sëriñ bi barkeelu ci ndox mi euh, def ci ay ñaanam muy ñaari xasida yi alhamdulilahi jasili nihmati ala xuróoji maa xaynu rahmati maa ngi sant sama borom ci ndoxum aynu rahmati mii ma ko doon ñaan ba mu may ma ko fii ci Touba genn gi mi ngi ko tëggee wajaba abdullahi wa salaatu ala bii bihi tafi salaatu fajarta yaa rahmaanu xaynu rahmati maha salaamatin wa xayri nihma fajarta bënn nga yow yaa rahmaanu yow yërëmaakon bi aynu rahmati bëtub aynu rahmati boo xam ne maha salaamatin mi ngi ànd ak jàmm wa xayri ma ak ay ay nga xéewal yu bëree bëri ndox mi dafa amay xéewal yoo xamante ne nii lépp loo bëgg booy naan ci ndox mi fas ko ci suñu borom dana la ko defal loolu mooy xéewal yi bépp jàngoro boo am booy naan ci ndox mi boo ko ci fasee suñu borom dana la ko saafaraal bu soobee Serigne Touba. lii moom maanaam mooy xasida yi nga xam ne moom la ci Serigne bi def mooy ñaari xasida dañ ko traduire français traduire ko anglais ak fran ak arabe nga xam ne loo boo ñëwee foo mën a jóge rek boo ñëwee boo liiree da nga xam ndox mi lim lay jariñ waaw mooy barab bi waaw mi ci mi ngi ci xasida yi moom waaw moom la moom lañ def foofu waaw waaw bi nag ma nga ci biir foofu la ko Serigne bi bënnoon foofu la teen bi nekk mooy ba tey waaw maanaam teen bi cosaan li sëñ Touba mi ngi ko gas 1888 daal sanc Touba ci la ko gas ah, bi mu sancee Touba rek ci la gas teen bi ba mu bënn ba ci ci la doon barkeelu it fii lañ ko daan jëlee di ko ko yóbbul njaareem mu koy mu koy naan mu ciy barkeelu booba it mag ñi dañ daan def bu buñ jógee fii buñ dajeeg ñi jóge njaareem ñu jox leen ko wàññeekuwaat waaye ndox mi sëriñ bi da ko fonkoon ba nga xam ne ndox mi daawul laal suuf ndox mi bi nga xamee ne sëriñ bi euh, jóge na fi ndox mi demoon na ba nga xamante ne ni ndox mi teen bi euh, demoon na ba bëgg sàkk waaye sëñ Fallou moo koy yeesaloowaat maam sëriñ Sarr doomi maam Cheikh Ibrahima saar Njaañ ba ndox mi dellu siwaat beneen bi nga xamante ne nii yeesalaat nañ ko it sëñ Abdoulaat moo koy yeesalaat ànd koog Cheikh Basirou Sarr ak euh, sëñ Khalil saar ñoom ñu defaraat ko ba teen bi melaat nii mu mel mooy nii nga gis ne moom lañ ko moderniser ba mu nuruwaat àndaat ak jamono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 tàngal kafeem di bégal mbooloo mi yoon waa ngi. jërë ngeen jëf mbokk yi bàyyi xel senego point com euh, ba tey yéen a ngi seen émission yóbbul màggal ak senego TV euh, gis ngeen tey ñi ngi fii ci. Euh, ñi ngi fii ci Aynu Rahmati nekk bërëb boo xam ne semmool la ci yoonu murit gis ngeen euh, sëriñ bi ñu fi fekk nga xam ne moom la dénk barab bi euh, kàddu yi nga xam yëkkati na ko mu di barab boo xam ni euh, ab teen mi ngi fi di teen boo xam ne si Ahmad Bamba Xaadim Rasul borom màggal gi di sut safar moo ko bënnoon ci loxol boppam gannaaw ndigal daal di ko yeggalee ba jamono ji tey ñu bëri ci taalibe itam bu nu màggal see daana fi ñëw ngir barkeelu ci ndox mi di moo xam ni boo ci tànqee ba di ko naan lépp loo ci fas sunu borom subhanahu wa taala daana la ko defal ndax daa jóge ci ndigal Sénégo TV incha allah rabbi xam naa daanuñu ngir wàññale leen ak moom xamal leen ak bërëb boobu ba tey ci yóbbalu màggal ak Sénégo TV jërë ngeen jëf di gërëm itam suñu cameraman Cheikh Bey wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu